Euh, gannaaw nag bu ñuy xaar publication wu nouvelle équipe gouvernementale bi nga xam ne moom la njiitu réew Macky Sall war a dajale loolu ñu koy xaarandi euh, mënees na génn ni ki tey jëlee moom premier ministre Amadou Ba bi nag waaye tamit euh, candidat wu coalition benn Bokk Yaakaar ci présidentielle yi 2024 daal dinay am ndigalu njiitu réew Macky Sall ngeen nag mu tànn see collaborateur ba noppi daal di leen placer ci ay poste clé mënees na xaarandi ba tey gannaaw xibaar yi ñi nga xam ne ñoo dina tongee nekk ci RFM Euh, ki nga xam ne jamono jile moo nekk ministre de l'intérieur di Antoine Félix Diome daal di jugee ca màkkaan bu ni mel daal di nag nekk directeur de cabinet bu président de la république ca geneen ak wàllu tamit mënees naa xaarandi ñu daal di tabb ak ministère boo xam ne mooy chargé li nga xam ne mooy ay élection euh, file ci réewum Sénégal loolee mënees na ko xaarandi ci gouvernement bu yees bile ay changement tamit mënees na xaar ci li nga xam ne nag moo di ministère bu agriculture ba tey RFM di ñu xibaar na rek Samba Ndiobène Ka bi nga xam ne jamono jii moo nekk ministre du développement communautaire de solida de la solidarité nationale ak l'éthique sociale ak l'équité sociale ak territoriale moomee euh, mënees naa xaarandi mu wuutu ki nga xam ne moo di Aly Ngouille Ndiaye ca makkaanub ministère de l'agriculture euh, googe ba tey euh, nga nekk ci RFM duñu xibaar rek ne. Euh, ki nga xam ne moo di Oumar Youm mënees naa xaar dellusi sim ci gouvernement bu yees bile moom mi nga xam ne euh, jamono jile moo nekk président bu groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar euh, war naa kon quitté foofu ci assemblée national daal di nag ñëw àndaat ci gouvernement Amadou Ba bu bi ñu war a tabbu kañu njortees nag ne mënees na ko wuutu ca poste boobee moo di ki nga xam ne moo di Abdou Mbow nekk président bu groupe parlementaire bu coalition Benno Bokk Yaakaar foofu ci assemblée nationale. administratrice administratrice bu FONGIP du Thérèse fay Diouf euh, moom it mënees xanaa xaarandi mu bokk ci nag élément yi nga xamante ni euh, dinañu bokk ci équipe bu premier ministre bi di Amadou Ba waaye tamit candidat bu coalition benn Bokk Yaakaar ci présidentielle yu vingt 25 février 2024 gannaaw ba njiitu réew mi Macky Sall ne moom mile du nekk candidat ca lu nu mel jërë ngeen jëf mbokk internet lii mooy xibaar yi ci bile vidéo yeneen xibaar ci yeneen vidéo lay doon bu ci